accusation yooyu nga xam ne def na ko ak ay preuves juge bi selon ses donc ce dossier n'est pas encore terminé maintenant quand il y a une affaire judiciaire comme ça qui intéresse tout le monde parce que li tax muy tout le monde mooy c'est l'homme Ousmane Sonko la personne de Ousmane Sonko lépp lu laalee ci moom wala lu taqi ci moom dafay intéresser nit ñi mhm. muy benn donc ce n'est pas n'importe qui c'est un leader politique qui est extrêmement suivi et qui bénéficie de beaucoup de soutien mhm. donc kooku bu fekkee am na lenn loo xamante ne dañu ko koy taqalee rek na la leer ne nabu c'est-à-dire nit ñi dañ lañu bëgg xam les tenants et les aboutissants lan la beneen bi ci topp mooy li ñu ko jiiñ du mbir bu ndaw ci koo xamante ne c'est un candidat pour 2024 et qui a a ci mbir mu ni jàpp na ne dafa ci dara ñu seetal deram carrément pour que moom buy dem mu mën a dem les mains blanches sans que mu am dara lu ñu ko taqal ci wàllu boobee et puis euh, beneen bi ci topp mooy xam nga affaire judiciaire yu mel ni bu amee ci dëkk c'est-à-dire c'est à l'état de contrôler si tu veux ce, ce dossier-là l'état c'est à la justice de contrôler ce dossier-là de telle sorte que euh, nabu ku ci mhm. nekk ci wàllum yoon maanaam di nga def li la war te doo taqe ci leneen maanaam il faudrait que mu yem mu que ce dossier soit tout simplement mhm. benn dossier boo xamante ne dossier de justice la mu mhm. bañ a doon benn dossier boo xamante ne dossier politique la mhm. buñ ci raxee politique rek dañuy yàq yëf yi bu fekkee ci yoon rek lañ ko bëgg a teg nañu ko teg ci yoon tey teg ci yoon boobu nag xam nga li muy indi mooy euh, fi nga xamante ne foofu la responsabilité féete maanaam ñu teg ko foofe bañ ko déplacer feneen donc Ousmane Sonko c'est quelqu'un boo xamante ne ni euh, du n'importe qui ci réew mi ba boo ko taqalee ci mbir mu ni mel maanaam mën naa sedd ba nit ñi duñ ci wax nit ñi dinañ ci dox dinañ ci gëstu dinañ ci wax dinañ lux mbóot dinañ xool dinañ toppatoo parce que nit ki moo tax dimension nit ki moo tax rawatina nag mu dem jàkkaarloog juge ñëw taxaw def conférence de presse am kooku ragalul ku war a mën a toog révéler li nga xamante ne moom mooy secret secret waxtaan gi mu am ak juge def ko conférence de presse windigement wax li ci xew génne ay preuve am ba lim ay turu doomu aadama mhm. saa waay kooku ragalul loolu ragal du ko def su fekkente ne je pense que bi mu koy def ça d'ailleurs il a dû avoir les conseils de ses avocats entre autres ci mbir mu ni mel donc xam na moom ci ban posture la taxawee te li mu wax fësal ko mais loolu na Pape Alé wax mais où est le problème journaliste d'investigation la journaliste d'investigation la tudd xam nga réew mi li ñuy kaas mooy une politique de deux poids deux mesures mhm. journaliste bi ngay wax noonu kooku bu amee sañ-sañ moom it kon nañ ko woo moom it nañ ko woo jàpp te buñ ko woo de nañ ko fekk muy dox ci mbeddu Sandaga yi wala fu mu mënti doon ñu ne ko nu jàpp nañu jàppee Pape ale ca Alé Papa Gueye Fall mhm. cest à façon gu boobu sax moo war a dakk parce que jàpp gi war mooy nabu dañ lay jox convocation nga dem wuy ji yoon. effectivement. comme ça coo fenoo rayoo nit. Mm-hmm. defoo fi lu war a mën a tax ñu naan nit ki kat euh, il faudrait ñu stopper ko à un certain moment donc vraiment il faudrait que les gens puissent être libres li Papa Assane di wax. Mm-hmm. c'est important nabu. Mm-hmm. que ci dëkk nit ñi mën a am sañ-sañu am yenn liberté yi. c'est important que ci dëkk nit ñi bañ a ragal. maanaam wax dëgg c'est important ci dëkk que nit ki mën a am sañ-sañu ci réewam vraiment mu bañ a sentir ne am na les les pieds et les poings xaw ma nu ñu koy waxee liés loolu il faudrait que ci réew mi vraiment peur boobu parce que en réalité dafa am une certaine crainte boo xam ne ñu wax ko ak ñàkk ko bañ a wax mais loolu fi am mhm. nit ñi dañuy ragal a wax dëgg parce que ragal nañu tout simplement yoon tegu ci seen kaw dañuy ragal a wax dëgg parce que ragal nañu bu ñu paree ñu ne leen ah kaay toog fii yow lan moo tax lii nga wax ko fii xam nga loolu itam bu dee am ci réew te dëgg-dëgg nag réew ku ko bëgg jàppale nag mhm. il faudrait ngay dégg naam ñu lay wax wiiw bravo waaye faw ngay dégg itam ñuy dal ci sa kaw ñiy dal ci sa kaw am nañu dëgg wala amuñu dëgg li la war mooy nga taxaw seetlu gëstu ci sax au moins xool ba xam ndax kii li muy wax am na wala déet wala boog bu amee nan la ñuy def ba jéem koo jubbanti ndax nag gis nga ñi la fal ci réew ñi ànd ak yow ñi ngi ci ñi àndul ak yow ñi ngi ci te ñi àndul ak yow ñoo ñoo gën a jar a déglu sax ka ñi ànd ak yow parce que ñi ànd ak yow loo def baax na mais ñi àndul ak yow ñooñu da leen war bàyyi xel saa su nekk fooy mënti nekk ak foo mënti toog parce que ñooñu en réalité yow da jàpp ne say noonu lañ mais voilà des personnes qui vous rendent service. Mm-hmm. Euh, mami Paasane balaa ma koy fàtte balaa ñuy dem ci deuxième